Sénégal émission bi mi ngi nii gis nga émission bi mi ngi nii gis dafa mel ni sëñ Moustapha Dramé moo daw man nag xam naa mbir yi dootul yàlla ay kase de boo lépp tey bisu kase la mënu nga ñëw ñu waxtaanee ko rek du dëgg parce que boo fexee ba dugal ñëpp safara am na ñu am fula ñoo xam ne dugg safara mënoon ngaa ñëw sama xarit bi affaire bi ay waxtaan rek la woon confrontation jarul daw Koukandé da war a xaj xar géej gi mënoon ngeen ñëw ñu waxtaanee ko rek na solo du dëgg mbir yi dootul yàllay kese de mais nag confrontation par contre yàllay kese la te xam nga ñun kenn duñu fay pour toog mhm. kenn fayuñu déedéet dañuy toog ñu waxtaanee ko. du li la neex rek ngay dégg waaw loolu yàlla dimbal nañu ci. danañ nga ñëw ñu jàkkaarloo parce que dama sañ sama jekk faa démb laa ni ngeen musóor ma ma def sama barakatu bu baax amu saa ko waaw waaw. seen gold pourtant xeeb ma woon sa bis bi de. Mhm. ma sàjj sama maquillage bu baax Amadyar defaroon ko ma laal samay gold. ndànk war a ñëw tax waxtaan ak yow ba pare teral la. Mhm. dama doon jox ay cadeau ay coffret ay power bank du ne jox naa ko parce xam nga sama sponsor dañu am maanaa te pourtant dañ ko doon waxtaanee rek en douce ñu fexe rek ngay wax ñuy teggi ngay wax ñuy teggi ñuy wax ngay teggi noonu rek la waroon a demee mhm. <laughs> ñi doon xaar bari na de waaw waaw ñoom da baar mm, mm. groupe yàlla lay kese ñoom ñëpp ñu ngi doon xaar pourtant. ma nga noonu émission annulée mm. annulée.